li tax ñu dugg ci politique bi yëngal na dëkk bi yëngal boo xamante ne maanaam jaru ko nañ deme xel te xam ne ki moom réew mi moom na ko ba pare ndax li ma leen wax ci biir géew gi ñeme naa ko wax fu ma toog ndax damaa gis ki ki yor nguur gi fi ñu toll nii mu toog ci mbaar boo xamante ne daa am bant bu jóge ci mbaar moomu daanu ci suuf waaye moom ci jëmu boppam solul yére malikaan bu weex la wodoo waaye ki mu talal loxoom kooku papaam dundatul mënoon naa jàpp tur nag waaye comme dañoo nekk ci réseaux sociaux te baaxewuñ ko mu ngi ci kanam bu soobee yàlla dingeen ngeen war vidéo bi ngeen di wax naan saltiki jegu waxoon na ko. politicien boo xoolee bu baax dinga ko xam. yàgg na yàgg naa ngeen àdduna yaayam moo fi def. foofu lañu mën a yem ci ay firnde loolu la ñu suñu maam jàngal. nawet bi xel mën naa dal waaye ma ndakaaru na ngeen préparé bu baax ndax def maa defal ci guddi alarba guddi ab larba mu def taw boo xamante ne daa ànd ak ngelaw gu bëri waaye ngelaw gi mu ngi jóge biir Bawol mu mel ni dama taseeg ñaari jigéen yoo xamante ne seen séer yi biñ ko wodoo dañ koo xëj ba mu yéeg ci kaw ñu takk ko mu am góor goo xamante ne màgget la waaye fos bu weex la yor di ñëw di ma jub si moom ci jëmu boppam moo ma wax ne fi jigéen yi woon ginnaaw ngalaw gi lam fay def musiba bi yaatu na lool côté côté Bawol la ngalaw gi jóge di dugg si biir dakaar côté Bawol mooy musiba waaye mu ngi dugg si biir dakaar waaye côté boobu la jóge kon waa dakaar képp koo xamante ne dëkk nga fi nga xaw ne lu la nawet bi mën a yàqal muy ngalaw gu bari ak taw boo yeboo nga préparé ko. rey yu bari yi foofu li ma ciy wax mooy daa am loo xamante ne daa nekk ci tali yi nekk ci biir dëkku ville yi te nit i bayewuñ ko xel maanaam daa am jinne yow xamante ne danoo soxla jigéen yi nekk ci seen période maanaam jigéen yi nekk ci période mbaax seen deret boobu la ñu soxla ba tax na dañuy xabtal jigéen yi da ngay gis jigéen dugg loo xamante ne sax du jikkoom waaye bu paasee mu koy rëccu fekk na dañ ko cee xabtal loolu jinne moo koy def mooy dugg waa Dakar foofu ma ne leen buñ ko mënee bu ngeen gisee maanaam mara boo xamante ne dalee naa wax ne nañu saraxe nag bu weex ci biir géej gi bu dee sunguf bu xonq lañ ko war a soti na ngeen nangu waaye bu dee sunguf fu ñuul day indil dëkk bi gàllankoor te ay du fi jóge jërëjëf. futur président bi kan la ci leader yi nga xam ne jamono ji ñu ngi jàmmaarloo. man de ki ma dégg muy lakk làkku séeréer làkku olof. làkkul séeréer làkkul olof. kon Sonko la. Ah. en tout cas wax. moom nga gis. dégg en tout cas yaa ko wax. mais ki ma gis man dama ab njool mu ñuul la. néew ma la Sonko la. néew ma Babacar la néew ma Jean néew ma Paul en tout cas mu ñuul laa wax mu kenn sol yére yu weex waaw. mais nee naa la yow accident yi may gis dafa am juróom ñaari jinne yi nekk ci fii Ndakaaru ñetti jinne yi dañoo am ay doom. doom yi bu ñuy dox ci kaw tali bi oto bu leen bu nga mbëkk dañ lay bu da nga daanu wala nga mbëkkanteeg sa oto mais bu fekkee ne nguur gi mun nañ ko nañ ma kenneel benn nag ku ñuul ku moom la ñuy rey ñu sara ko ay puune bu ko defee yow dara ci ak accident bi daal di wàññeeku ci réew